yaaw mu baax mi sigil ndigaale yaay ki lekk deseer moo la mujjee rongoñ sigil ndigaale yaa awa yàlla na saraxam yàgg seen loxo yàlla ngeen suuf seen seen yaay ci ci ci ci xaw ma nu ko olof di waxee yàlla na suuf oyof ci kaw ñu koy ñaanal di ñaanal bépp yaay yàlla may la gudd fan ak wér gu yaram ñi nga xam ne seen yaay dañoo génn àddina ñu ngi leen di ñaanal xolub muñ yaaw rasul maa ngi lay wax ne la li la dese bari na gën a la góorgóorlu yokk li nga doon góor góorgóorlu donte sa yaay moo nekkoon sa wéeruwaay waaye jàmbaar nga tey ku ñëw seen dëj bee gis la xam ni say mbokk jéppiwuñ la ku ñëw sa mbo ku ñëw sa famille ba gis leen xam ne famille bu baax nga bokk sa papa ju baax ji macha allah mi ngi toog ndaysaan uuf leen boo dikkee rek moo boo nee sigil di gaale mu ne ndaysaan dégg ngeen mu ne ma yaay aw papay ba yaay awa ne ma kaay añ mu ne ko suur naa mu ne ma lekkal ci ceeb bi borom dëj baax la woon ku baax la woon dégg ngeen lekkal ci ceeb bi rek yaay papa yaa awa dana naan borom dëj ku baax la woon di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may xol muñ yàlla bàyyi koog njabootam ba ci kanam ak kanam mu gunge leen yaa awa maa ngi lay ñaanal bu baax a baax yal na suuf ayof sa kaw yaay bu baax a baax yal na saraxam yàgg ci sa loxo yal na boo am lu la naqari sa àdduna sa yaay yal na la tuddoo jàmm ak salaam yàlla na yow yow mi nga am gudd fan ak wér gu yaram dëju yaa awa balaa jóge